ولم يجد أمون معه أن وفاء الدين لمن في بربا فلسه سيسر نوال قاضي أتكتبا وإن لم يحضر دين ممتعوت ومن تصرفي سبنكم بمال انت على الفحجوري ننكو هير سوفك دفع من بربا بوري أبو أرلم أمور لمكو فأي سبوبا أتكتبي دفكو سيسر dafay jël alal ji jaay ko jox ko bori di la moom ñëwut naka noonu it dootu a soppandiku ci alalam comme mu naan def ndax alal jooju moomatul ko borom bori ñoo ko moom su ko defee fii daf cee tënk charte yi nga xam ne mooy tax sisir am borom sara bi dana ko mottali yëm tuddut mu ne daa xaata dayno bil madini moom laa yax juru لا يحجر دي حير على شخص تجمه ولا يحكم دي أت عليه تمام بالتفليز دي سشير إلا بشروط نما أيسر فهو ساتي دي يقول نيور كو آي جفن دي كوشي ألم نيور كو أحدها بين شرط أن يحيط مهم بيك أدين بربي بجميع مالي سنبول مالج نفك بلان يكو سشير نفك بري دك ألج منام جيخ الألج ay an yakuna mu nekk addaynu bor allazi bi nga xam ne ala war na ko lil xuramaa yi ñeel client yi xadra maa yamliku di tollook lam moom aw aksara loolu ëpp minu ci moom benn sarta sarta sisir mooy bor bi nga xam ne ni daanu na ci kawam na tolloo lu am ci alal wala bor yi ëpp àllam fayn kaane nekk na maa yamliku lam moom aksara di ëpp maali ci la ko war mën a dee ci bor وفلا يحكم دنيات عليكم بتفليز السسر ولا يحضر بنهير عليكم نكو بالجفن كسالا إلا إذا تبرع لمي يمتشو بما زاد شرا أبنا ولا ما يقابل لجاك لوب هدينا بربا جيغم فيرد دين دلو تبرو تشوبرهم fi ma yen kudu ci lay wàññi maalu allaman musawaati ma si عليه ونكو من الدين جبر su fekkee si misaal ñaari million la yore bor mhm. moom àllam ñeenti million la mhm. kenn du ko sisir mhm. dégg waaye nag su bëggee saraxe wala mu bëgg a maye ñaari million genn wàll xam nga su boobaa li des ci alal ji bor baa ko yëpp loolu duñ ko nangu dañ naan ko ñaari million daal nangu ko joxe moom ñaari million ma nga ko joxe waaye genn wàll ga ci tegu moom déedéet kooku moom ci boori la bokk loolu la loolu bëgg wax foofu kon sart bu njëkk bi mooy bor yi na wala mu tolloog alalam pour ñu door ko saisir loolu la war a idaa haata daynu bil madin sart ñaare mooy amul lu mu fayee wa saaniha ñaareelu sart ba allah jëre mu bañ a am maa la nga xam ne yëf yi dana matal bii ci moom daynoo borom xëy na ba jëre nem am na maa la nga xam ne yàq suuf dana am bii ci moom al wafaawu fay min miraasin mu jugee ko ci miraas aw xibbatin wala may aw sadaqatin wala saraxe falaa yaxkumu duñu àtte alay ci moom bi tafli sisir ñaareel ba mooy mu bañ am lu mu fayee bu dee dëgg la boori tool naag àll na wala ëpp na ko waaye ñu ngi yaakaar am na miraas mu war a miraas loolu war na cee mën a fay wala boo am na ku ko may dara mu war cee fay wala am na ko ko sarax mu war ko fay maanaam daal bu mënee fay daal ak nu mu ko mën a fayee kenn du ko sisir dégg nga mooy bu mënee fay rek mooy ne kon bor yi daanaka peegul alalam rek ëppul alalam rek dégg su mënee fay daal kenn du ko si ñaari saat yi daanaka la rek ndax lañ la may ah, loolu daanaka saral la bokk rek yaa ngi seen mu la saali soi ñetteel ba an yaxel la mu wàcc ma alayhi diirab la xam ne war na ko mën a duyuni ci bor aw takkoon mu nekk xaalatu ak wàccam asaara den di ci sax dafa bor diir ba jot na ci lañ koy sisir waaye bor yoo xam ne fay ko jotagul kenn du ko sisir ci loolu wala muy bor boo xam ne daanaka mu diir rek comme mu yàq àllu jàmbur xam dafa war a fay saasi rek kooku it nañ ko sisir bu yàqee lu bëree bëri bëri war ko fay kooku amul ay jàppaluñ koon benn diir dafa war a fay léegi hmm? Hmm. kon balaa ñu saisir nit foow bor yi ëpp alalam wala mu tolloog alalam dégg ñaareel bi mooy amul lu ko fayee dina lañ koy dimbali sax fayal ko ko sax waaw mais bu dee moom am na ñu ko dimbali fayal ko bor bi kenn du ko saisir ñetteel ba mooy waxtu mu war a fay jot kon duñ ko saisir ngir bor yi nga xam ni waxtu wa jotagut su ko defee ba leboon bor nga xam ne bor yi am yëpp ëpp na àllam waaye nag ya ca waxtoom jot ëpput àllam kenn du ko siisir bële wala matagul àllam kenn du ko siisir dégg yaa ngi ma dégg fay lam yaxul la ndam jotagul ajru ma alayhi diiram la war na ko mën a day ni ci bor wala yu fan su duñ ko siisir bil xaq bil xukmi ci àtte raabiwaa ñeenteel ba añu taaliba mu sàkku alxurama borom booree bi duyunim seen booree alxaalata ga nga xam ne diir ba wàcc na almuxiita bi aji peek bi maali ci àllam kulluhum ñoom ñëpp aw baadum wala ñenn yi ñeenteel bi daal mooy ñi nga xam ne ñoo ko lebal ñooñu taxaw ne leen fay bu fekkee bor yi ëpp na amul lu mu fayee mm-hmm. waxtu ba jot waaye laaj ko ko kooku kenn du ko siisi mais ñooñu bu ko ñëpp laajee walla ñenn ci ñooñu laaj ko des koy sisir fay lam yu taalibu nam sàkkuur ko minum ci ñoom ahadun kenn falaa mu duñu àtte alay ci moom bi taflis si sisir ay den ba tey bu dee kenn fayeekuur ko nag kenn du ko sisir fayeeku gi nag moom ni mu waxee du sart ñëpp fayeeku kon ñeenti sart la ñaari la borom téere bi wax mooy bor yi peeg alal ja maanaam tolloog alal ja te amul lu ñoo ko ci waxtu wa jot kili ñe ko lebaloon fayek ko ñu ñeenti sat watum na wala may ta an rab gaar luut a naazima waykat bi li sarteyn axiré ñeel sart yu mujj yi su sart yi dajee nag la wax ne fallasahul qaadi wa in lam yaxduri ay anna shaxsa naka jëmm isa axaata bu peegee addaynu bor ba bi maali ci àllam wakaana mu nekk saabitan daal ji sax ale ci moom bi ixtiraafin ci nangu moom nangu ne ne moo leb aw baynatin wala seede yu wane dafa leb aw sakookin wala ay sek ñu bind ko kon bind yi tamit dañ koy kii waaye moom alwasaayiqu mooy kayit yi al maarufa ñu xamee ne la amati ci mboolem bi sanadaat mooy kayit yooyu ñuy bind signé ko yooyu day taxaw taxawaay seede jëlee loolu nag Hmm, moom gannaaw ak la kii su ko defee du da nit du ko yoreel bor foo mu am preuve fuñ ko bind wala mu am seede yu koy wane wala mu nangu borom bor bi nangu liñ ciy bañ mooy la yonent wax law yoxta naasu bi daawaahum la daa rijaalun amwaala wa dimaahum al bayinatu ala al muddaci wal yaminu ala ma ankara mais bu fekkoon li leen wax ñu dëggal ko danga gis ñu laaj deretu nit ne dañ ko war a rey parce que dañ ko tuumaal lu tax war koo rey wala ñu laaj alalu nit ne daf leen war a jox alal te fekk loolu dëgg loolu ñu ci déggee du loo dégg gëm loo dégg tàmmoo ci preuve bul ko gëm bu doon lu nit wax rek dëgg la ko doon kenn baaxatul ci kaw suuf ndax ku nekk tuumaal lañ loo xam ne weñ wu ci dal dee rawatina ku ku jaar ci yoon bu baax sax kon su ko defee balaa ngay gëm dangay am seede téere yi nag bul xool ni koy nit ñi di xoolee xoolal ni ko lislaam tëralee daal bul bu bu boo gisul daal foo lislaam saxalee mbir mi rek ala kulli yow bu ko saxat hmm, noonu la moo tax du ñëw rek ne danga maa yoreel bor fayeku la te dina am bu fekkee amul benn preuve nag te wóor na la yow yaa leb ba léegi da ngaa war a fay rek boo fay daanaka hmm, hmm. maanaam maanaam fay sax moo teel a woon ñàkk fay waaw nga nangu boo nangoo te lu ñuy def tëj la jël di nga xam ci alal joxe ba pare bàyyi la nga dem dund ci loolu rek la de loo amagul nag ñu bàyyi ba nga am nga fay ko parce que buñ jaayee sa lépp moom duñ la fa topp loolu métti na méttiwu di walla bu méttee moo tene moo tene nga ne lebuma lekk alalam am ci mbugalam yàlla ak meram yàlla kon su ko defee nit ki bu ko wóoree dafa leb nangu ne dafa leb rek mu daal di fay daala ku laalin dugg na rek benn mu am jafe-jafe àddina bu nangoo fay wala mu am jafe-jafe àllaaxira bu nanguwul fay dégg sax daawul jullee sax ko dee fekk mu amee bor yu ñu fayagul gannaaw gi moom moo jël responsabilité di fay bor yi dégg dégg waqat xalla te fekk teew na ajulu day ni di rek bor ba war a famu mu kalaame ko alxuramaawu ña ko lebaloon aw baadum wala ñenn ñi leel xaadi ñu atikat yi maanaam su fekkee daal bor bi sax na sa sart yi daje nañ ci xakk mën a atte ali yi ca kaleb alxaadi atikat bi taflis yi si siir waxal yi jamee maa yemliku ak dindi mboolem la moom les ulama yi jox ko ñu nga xam ni ñoom la lépp wala kutub ilmin donte ay téere xam-xam la sax yaxtaaju dana soxla wala ñee ko lil mutaalaati ngir nafat wa tadris ak jàngale téere yi nga xam ni da ci xool masala di ci jàngale sax dañ koy jaayaale hmm? yàlla yàlla musal ci lii <laughs> dara dara gënu ko métti lu mooy moom jàngale gi nekk lu ràññeeku ci moom nga xam ne tey bu jàngalewut nit ñi duñ xam wala moom moo war def fatwa ci dëkk bi à téere yooyu bu duñ ko jaay maalam yi taxaw fekk ràññeeku naa ci mu alif taaw def fatwa aw taalimul ulumi wala jàngale ak darura yu mënul ñàng ñàkk min ko li fànn ci fànn bu nekk su fànn bu nekk li nga xam ne lii moom nit ñi dañ ko war a xam mu di ko jàngale loolu moom téere yooyu duñ ko jaay yaa ngi dégg parce que kii mu def ifta fatwa ci xam-xam fardu ayni la ci moom fardu ayni gi nag nekkul na ñu ko fay def bëri nañ wala bëriwut déedéet fardu ayni ci moom mooy ña ko fay def matee nañ ko wala matewut su fekkee moom buñ jaayee téeram yooyu wala ñu xañ ko jàngale moom dina ñoo xam nii ala kulli xaalin du jàng wala nañ waroon a xamee dootuñ ko xameetee kooku jàngaleem far doy la ci parce que amut ñu ko doy ñu ko matee waaye bu fekkee moom moom bu effacé woo tamit daanaka du wàññi dara li mu doon jàngale rek moom la nit ñi jàngalee na mu ko doon jàngalee moom la ko nit ñi jàngalee nañ doon xamee ci moom noonu la ñu xamee feneen su boobaa loolu du nekk fardaan ci moom kon fardaan gi bu xool si société bi société mën naa bëri ñu ne ñëpp a ngay jàngale fekk jàng am na am na jàngale yoo mën naa nekk benn daal dégg nga laa ndem jàngale fardu ayni la ci moom turika bàyyi nañ la ñeen ko maa la nga xam ne laa budda du mën a ñàkk minu ci moom su boobaa nga xam ne nag moom mënu koo ñàkk am dañ ko koy bàyyi lii loo ci déggee mooy masala bu ñu ko laajee bu yàkkamti da teey ba am ci lu leer door tontu teey tontu lu wér moo gën yàkkamti juum juum loo ñeneen foo doomu aadama yar bakkanam yar bakkanam mooy la mooy mu xam ne moom mm, kenn la ci yaamu yàlla yi lim bëgg jublu ko mooy nit ñi xam paa wane boppam su fekkee loolu la kay yoon wi nga mën a jaar ba nit ñi xam rek baax na du sàrt ne force lañ laa laaj léegi nga tontu loolu wane sa bopp la boo ko mënee nag gadaawut bu dee wér na te wóor na la li nga tont noonu la ñu laaj la nga tontu baax na waaye tamit tey xool ba gën a am lu wóor dafa gën a wóor waaw kon nañ fexe rek nu ñu indilee nit ñi xam bu weer loolu mooy kii waaye nu ñu wanee nit ñi ñooy ñan ak suñ tolluwaay loolu jaru ko. su ko defee euh, moo tax mu ne la téere xam-xam yi nga soxla man loo nekk nekk borom xam-xam dina am téere yoo xam ne da ciy soxla di ci dellu mu gën laa leeralal mbir mi yooyu kenn du ko jaay bu dee fardu ay la ci yow. wayu baaw danañ jaay xale sukkuñ si ay dem ba tey siyaabu jumaati yére ajuma bi yére yi muy sol ajuma nga xam ne ajuma ajuma la koy sol ak yére yi xam ne yére xew la yooyu dañ koy dañ jaay ndax yooyu mën naa ñàkk. wa zinati ak yére taarloom yi muy noosee isa kaana bu nekkee zaatu xiima yu am daraja gis nga dafay wax kuy si la ñuy jaay ci moom mooy li nga xam ne mën na koo ñàkk wa ma zaada ak la ëpp na ala ma ci ne xam ne laa budda du mën a minu ci moom min daarin ci kër xam nga am na dëkkuwaay yoo xam ne mënu koo ñàkk am boo ko génnee fu muy fanaan yooyu kenn du ko jaay waaye li mënul ñàkk nag moom dañ koy dañ koy jaay si misal bu doon këram quatre appartement la bu dee benn appartement bi doyna ko moom ak njabootam moom ak njabootam it da nga gën a suuraale su appartement boobu kenn du ko jaay mais yeneen yi duñ koy jaay. wa firaasin ak lal tëdduwaay yi nga xam ni mën naa ñàkk dañ koy jaay te mën nañ ko bàyyi benn malaam rek yeneen lal yeeg quoi foos yi yëpp ñu jaay ko parce que yooyu nit mën na ko ñàkk. waaw waa ne ak ay yi nga xam ne mën naa ñàkk dañ koy jaay waaye yi nga xam ne si lay def añam kay ak yi muy naan kenn du ko jaay wa si biyaa ak yi niroog yooyu si sir lu am lu ne koy jaay dañ koy bàyyee nga xam ne lii moom mënu koo ñàkk am te jamono bu nekk ak lu mu mënu ñàkk jamono day soppeeku am na loo xam ne boo ko xañee nit si jamono mooy xarak nga ko wala rey nga rek loolu lañ ciy bañ waaw dañuy bañ rey bakkan bëgg fay bor ba rey bakkan jaru ko te am na xam ne boo ko jëlee ci nit rek benn naqar rey ko wala ci dund lu mën a dund rey ko loolu loolu dañ koy sóoraale maanaam mën nga si jàpp sax nit bu fekkee mu ngi dund bu bu bu dal bu teey ba nga xam ni boo ko si siree jël kilimam bi sax mu jaaree fa feebar da ko war a bàyyi kilim bi yaa ngi seetlu ma wax ku nekk rek ak lu mënul ñàkk am kaana nekk na xaadiran aji teew bil baladi ci dëkk ba moom ma ñuy sijir aw xaayiban wala aji fàddu ka ñuy sijir ma ngi ci dëkk ba walla nekk fa moo ci yam it ngir ak tafriiru sisir laa yu sart duñ sartaal fii ci moom xudurul madini teew ak nga xam ni moom moo lépp mm-hmm. buñ lay sisir duñ sartaal nga teew wala nga ñàkk teew mm-hmm. waaw moom daal bu sart yi dajee mat Mm-hmm. wóor na am na ah, yore nga bor attekat bi mooy xool rek ñëw xool sa alal yim ci war a jaay ak yam fa war a bàyyi mm-hmm. mu jaay yam war a jaay yi nga xam ne mënoo koo ñàkk am mm-hmm. mu bàyyi la ko kon nii la ñu si sëy léegi nag gis nga suñ jamono ji dem na ba nga xam ne tey nit bu lemee banque amul lu mu banque bu ñëwee buy sisif lépp lay jaay amuñ dara ci yërmande ñoom ñu ngi jëflante riba ba pare nañu sisifee baaxul te ñoom sax seen affaire tegu dara ci islam daal li tax tegu ci islam duñu xool li nga am ci alal yëpp ba xam mën ngaa fay wala mënoo fay ñu jaay yi nga xam ni liñ ci jublu mooy fayeku seen bor mais léegi moo lañ defoon garantie ñoom loolu lañ ñëw jaay moom jëlal loolu biñ ko jaayee nga torox dañ koy jaay bàyyi la ak jafe-jafe yow ak sa njaboot te ñu bëri ci banque yi sax dañ naan géej nga ñàkk fay bañ jaay li nga garantie ñu gisee nga am kër gu rafet nga am nangam gu rafet dañ ci teg seen bëri kaay ñu lebal la nga yow ñu lebal la kaay garanti sa nangam nga garanti ko ñu ne nga am problème ba ñàkk fay ñu jaay loolu buñ kon kon loolu la mooy buñ ko jaayee dinañ jëraayoo xaalis boo xam ne leboo koon ñoom dañuy jaay jëlee wala dañuy jaay delloo la kii fayeeku delloo la dinañ ci am intérêt ah ci ñoom waaw ñoo koy jënd de waaw diil jënd ko waaw waaw mën nañoo diil jënd ko su defee yooyu tamit dafa xaram gis nga système banque ni ñuy xeexee góor jigéen ci réew mi di ko xeexee caga ci réew mi noonu lañu war a xeexee système banque ci réew mi parce que not na nit ñi nit ñi mënutoo ñàkk jëflante banque te ñoom ñu ngi leen lor góor a génn ci réew mi baaxut dafay loolu mooy li nga xam ne moom mu aju ci wàllu sisir koy beneen dars ñu mottali bunt bi def na dana jeex in uridu islam wastata'tu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu